mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñi ngi nuyu mbokk yi ñuy topp yëpp di ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew te di ko jaare ci eh, seen seen MKTV muy Muxaddamatul Xidma TV ak GMT eh, di am mbégte bu baax a baax di ñëwaat ci seen jataay bii di émission gàggantiku muy émission boo xam ne dafay gàgganti dañuy gàggantiku ci suñ diine. loo xam ne dana yéwénal suñu dund ak suñu jaamu yàlla ñu ciy ànd ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne eh, dañuy indi ay laaj wala ay bind ay tomb yoo xam ne eh, laaj nañu laabire ñu ci eh, ñu ñëwaat fii ci Daaru Salaam daam ci kër Serigne Mbacke Abdourahmane ngir ànd ak moom ci waxtaan wi kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. Euh, aousubillah min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalallahu taala wasallama a sayidina muhammadin wa alihi ajmain waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sëriñ Abdoulaye maa ngi lay delloo nuyoo di nuyu mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi bàyyi xel jataay bi di leen ziara di leen ndokkeel di ñaanal jàmm sàkku ñu ñaanal ñu ko fas yéene ñëw ànd ak yéen ak jataay bi ñu ko baaxoo defee jërëjëf sëriñ bi jazaakallahu xayran ñu ngi nuyu tamit sëriñ Abdou bu so mi réalisé émission bi ak sëriñ Mouhamed Ngom mi mu àndal ci technique bi di fàttali bokk yi rek comme ni niñ koy waxee képp koo xam ne am nga laaj ju diine boo bëgg laaj man nga koo yónnee ci whatsapp 77 531 91 98 soo ko yónnee sëriñ bi dina tontu laaj bi ci biir émission yi képp koo xam ne it bëgg nga émission bu ñëw tamit euh, nga nga am ko ci le 9 bu ne ak le 23 dangay abone abonné ci MKTV MKTV euh, wala nga abonné ci YouTube tamit GMT TV muy Grande Mosquée Touba TV bu ko defee émission bu ñëw rek da nga ci jot incha allah kon sëriñ bi dañuy daal di jàll rek ci suñu émission bi tamit ngir mottali laaj yi nga xam ne eh, mbokk yi ñu ngi koy yónnee te mu ñor leen lool euh, ci waxtu wu nekk. su ko defee mbokk mi dafay laaj mu ne ndax dana dagan ki nga xam ne eh, ab étudiant la wala étudiante boo xam ne dafa jàng ba am bac ñu orienté ko université mu am bourse mu dem ba mu yàgg mu jekki-jekki bàyyi njàng ma nekkatul ci université ba nekkatu fa waaye continuer di fay bourse bi rek di jariñoo mu ne étudiant boobu wala étudiante boobu lan la ko diineem wax ci loolu loola muy lekk ndax dagan na ci moom dafa war a dem dana ne moom bàyyi na ngir delloo xaalis war a dafa bu continuer di ko lekk dana dagan ci moom euh, jërëjëf sëñ Abdou Lahad ñuy wax ne ab julit bokk na ci yitteem li mu war a def yitteem mooy fexe bay lekk lu lew mm-hmm. ndax dana tax dana yombal topp yàlla mm-hmm. sëriñ bi wax na ci njàng leen ne man akala al xalaala ataa allaha ahaba am kari mm-hmm. waaye wa man akalal xaraama asallaaha ahaba am kari loolu na bàyyi xel lekk lu xaraam day waral def lu xaraam lekk lu lew di waral def lu lew su ko defee ginnaaw dañ ko koo joxoon ngirum jàng di ko dimbalee bu jàngatu da ko war a delloo amatul benn sañ-sañ ci di ko lekk ci turu ne ndax ndax taxoon ñu jox ko ko nekkatul boo daa waroon delloo ni man kat lii taxoon ngeen ko jox nekkatuma ci kon jël leen suñ ko ko mayee nag mu door koo dakan jërëjëf sëriñ bi kon loolu leer na ci étudiants yi daal képp koo xam ne jàngatoo moom demal wax ne jàngatuma delloo sa bourse waaye jàngatoo ba noppi continuer di fayu sa bourse sëriñ bi nee na loolu du daggan ci lislaam su ko defee mbokk mi tamit dafay laaj mu ne euh, lan mooy àtteeb ki nga xam ne dafa deñ ci euh, jigéen koo xam ne jiitu na ko moom njëkk muy denc soxna soosu mu doonoon koo xam ne dafa foo ak waajuram dafa fo ak yaay kim denc ba noppi muy sikki sàkk ci ne moom kat euh, jote na ak yaay ji maanaa maanaam kooku kon lan mooy lan mooy ab atem su fekkee dem na ba ba ba xam loolu ba noppi di sikki sàkk loolu waaw xam nga ci fiq dañuy wax ne alxaraamu laa yuxarrimu xalaal hmm. même bu amoon lu ko leer ne jote na ak ndeyam lu tax doom aram ko bu hmm. fekkee jote gu aram waaye bu joteeg ndeyam ci anam gu dagan da ko takkoon soxna la ko doom di xaram mooy hmm. yàlla woon ak jigéen mën naa bul takk ndey kooka mën naa takk doomam ndax leelu xaram la magul amul ñooyam hmm. bàkkar bu rëy la nag boo xam ne war na koo tuub tuub bu sell ndax bu lislaam doon taxaw benn ñu ray ko mbaa ñu caw ko téeméer ci yoon téeméer yoon hmm. waaye nag ci atte moom loolu rek duñ ci sukkandiku wax ne ginnaaw euh, jaxasoo nag ndeyam doom wala ndey ji da koy arab ndax lu xaraam la te du xaraamal lislaam du ko bàyyi xel waaw xaraamal lu danga noonu jërëjëf euh, tontu boobu leer na kii mu ne lan mooy àtteb ki nga xam ne daal moom bëgg na di julli safa ak waaye am na ngànt munta mokkalul suratul ahla mokkalul sooratul kaafiruun nan lay def euh, sëriñ Abdul Ahad ñaari saar yooyu du sarta ci daf daf euh, safa wiitar mhm. dañoo sopp dañoo sopp ñu jàng ci ginnaaw fatiha la ak kaafiroon ak lixlaas fal xinaas luñ mhm. sopp la mhm. waaye bu ko neexoon di ci jàng leneen mhm. nit ki ko mën sax ko mokkal ko bu ko neexoon bi du sox bi jàng ci yeneen saar wala yeneen laa yu bokkatu yooyu waaye nag sopp nañ mu doon yooyu comme mënu ko nag na def lim man fekkoon wenn saar dong la mokkal mën a ci def yëpp jërëjëf sëriñ bi euh, loolu la loolu leer na mbokk mi dafay dafay laaj moom it mu ne ndax dana daggan euh, lan ngay wax ci bu fekkee ne nit ki dafa dafa sujjoot sujjootub la wala mu sujjoot sujjootub baax da maanaam lan lay wax waa xam nga sujjoot yëpp sàbbal yàlla ak ñaar lañ ci def mhm. rukkoo dañ ci sàbbal yàlla rek waaye sujjoot nag sàbbal yàlla ak ñaar mhm. yonentu al islaam nee na fi jàmm bi gën a jege boroom mooy bu sujjootee mhm. moo tax bëgg nañ mu sàbbal yàlla waaye ñaan ko soxlay adduna ak àllaxira kon bu sujjootee sujjooti farata yi ak sujud dam jamono ñoo ci yam yëpp mhm. loolu lañ bëgg ñu def ko ci mhm. sàmpal yàlla ak ñaan yàlla jërëjëf kii mu ne dafay laaj mu ne ndax dana jàpp ki nga xam ne dafa dafa mbërëg dafa nekk ci mbërëg wala mu nekk ci nifaas ndax dana daggan ci moom muy jàpp amul njëriñ ndax du du tegg laab daa bokk ci sarti yi tax ak laab wér mhm. nga set waaye ki nga xam ne jamono yi muy jamono yi muy jàpp wala muy sangu mi ngeeg sobe su mënta dañ jàpp du am njëriñ waaw moo tax fi ne ñu wax ne bokk na ci bu ñuy lim sart yi tax laab ak wér bokk na ci sax ñàkk daf munaafi waaye nit ki toogoon ci wanag di faj aajo ba noppi di jàpp loolu moom moom ndax na nga xam ne nag moom li ne ci moom jàpp mënu ko dindi sango koy dindi te moom sédagul bi mën hmm. jàpp amul njëriñ hmm. rek mooy nit ku yore janaaba hmm. dañoo bëgg ci guddi gi bu mënta sangu mu jàpp njàpp moomu du njàpp ngir yëkkati am toj day woyofal sobe seet mhm. moo tax ñu ne la la moo xam ne tuur ndox euh, yàqu ko mhm. parce que jox ak ci guddi gi euh, mënta sangu ci guddi gi xëy na ngir ay ngànt mhm. dañu bëgg mu jàpp ngir woyofal ko jàpp moomu nag bu nopp woon ginnaaw mu dem ci wanag a tur ndox kenn du wax jàppaatal hmm. jàpp moomu tur ndox du ko toj doonu jàpp muy laabal nit foofu rek la ñuy wax nit ki yore janaaba jàpp ngir fa waaye day jàpp yi ngir bëgg a laab moom ku yore nifaas wala yore janaaba euh, wala nga yore xaydu mënoo ko ko defee amul euh, dafay laaj mu ne ndax maa moom dana euh, dana béral kàbbarub ngir roy imaam wala deet waaw kàbbaru armal ak sëlmal dañoo sopp ñëpp ñu di ko béral hmm. képp koy julli dañoo bëgg nga di ko béral ilimaan maa moom ak kenn ku julli mm-hmm. jërëjëf sëriñ bi mbokk bi dafay laaj mu ne euh, lan mooy nisaa bi euh, asakay alal ci ci fi mu ne nii ak naka lañ koy xayma ndax tamit ndax dana dagan euh, ab yalwaankat nga di ko jox asaka waaw bu dee asaka xam nga bu dee xaalis fi ne day topp xaalis juróom-ñett fukk gramme juróom yi ñuy wax ne mooy nisaab ndax saxut benn barab ndax juróom-ñett fukk gramme ak juróom ci or tey tey. waaw ah, moom fi mu ne nii nii nii la wax. nii nii bu dee tey trente six mille tegal kooku ngir nga am nisaab dana mat trois millions yu jege teg lu jege cent mille franc trois millions quatre vingt huit mille franc yu teg tuuti. trois millions quatre vingt huit mille franc daal ngay am doog am nisaab bi sak. Euh, maanaam asakay xaalis sak asakay xaalis. ku am loolu ci xaalis bu mën a doon lu tolloog loolu am nga nisaab. mat at. waaw soo ko dencee mat am nga nisaab boo ko dencee at at. asaka door te war hmm. ñaar yooyu mooy day am nisaab denc ko at hmm. asaka door laa war leer na waaw hmm. ah, naka lañ koy xaymaa naka lañ naka lañ koy ndax danañ danañ danañ jox kuy yalwaan ab yalwaankat danañ ko jox asaka waaw bu dee xëy na naka lañ koy génne la bëgg wax ah. asaka moom mu toll boo xasee xam ne lii asaka war na ci yoon bi gën a gàtt mooy diviser ko 40 boo jëlee some bi diviser ko 40 lu mu jox ko 40 lu mu la jox rek mooy maanaam somme bi daal lu mu mën a toll da nga koy diviser 40 diviser ko 40 lu mu la jox rek noonu ngay loola ngay génne benn bi waaw loolee mu génn rek moom mooy doon asaka ji waaw mu ne ndax ab yalwaankat danañ ko jox asaka waaw asaka faqir lañ ko jox ak miskin hmm. yalwaankat ke bu dee faqir yow na ko xanaa nag koo xam ne dara jotu ko moom wala ñiy ñëw di ko laaj si nit bu ko dee laaj ngir ajo yi mën nañ koo jox hmm. waaw waaye li li mat a bàyyi xel rek mooy nit koo xam ne yalwaan du aajo waaw yalwaan nit ki ñàkk pexe moo ci war a dafa xam xadis bi wax ne asaka dëgganut ñu koy jox eh, ku dara jotul te mu am kàttan maanaam ku mën a liggéey dara jotu ko benn ngànt wala mu yelwaan nee na kooku moo di mhm. kon ñu mel noonu xëy lañu bàyyi waaye koo xam ne néew doole ko tax yelwaan wala ay aajo xelam mhm. am na wéradi am na ay ordonnance am na am na njaboot gu ko topp ba nga xam lu mën a liggéey it mënut tax mu mën a faj ay ajo mhm. kooku faqir la wala miskin kooku nag kenn gënu ko yaay asaka jërëjëf kii mu ne dafay laaj euh, lan mooy àtteb ki nga xam ne euh, dafa am nisaab te asakaalu ko ba mat ñetti at ndax su koy génnee day génne day asakaal ñetti at yëpp wala day génne benn at bi rek. waa xam nga asaka moom bu la xasee war du la wàcc. Mhm. lu mu yàgg yàgg. Mhm. ab la bu ne ci loo sax. Mhm. bu faatu woon sax dañuy bëgg ñu génne fay fay bor yi buñ xasee xam ne. bàyyi woon na ko dénkaane ko dañ koy génne hmm. kon moom bu amee ni xam ne ñetti at yi weesu génn asaka day génne asaka yi daaw jéeg génne daaw génne ren su hmm. génnee ñaar yee nag la jees matul ni sàpp ren wàcc ko hmm. jërëjëf loolu leer na mu ne naka la ñuy tuubee kii mu ne naka la ñuy tuubee ki nga xam ne dafa sàcc wala mu fen maanaam nan lay tuubee boobu bàkkaar nit bu fenee day tuub jégalu yàlla tuub ay ay sart bi ci njëkk mooy day bàyyi fen <laughs> waaw moo ci njëkk <laughs> da koy mu naqari ci xolam ne fen baaxul mm-hmm. fas yéene li des ci ak dundam dutu fen mm-hmm. jiitu ñett moo ci jiitu njëkk mooy daal moom na bàyyi fen d'abord moom waaw mm-hmm. ñaareel ba na rëccu lam jot a fen waaye bu ku toog fen naan man de fen def naa ko borom li mu leen def di ko bàkkoo loolu rëccu yi doom léegi moom daanaka fen moom dañ koy war a naqari ci xolam mu metti ko loolu nga xam ne bu tey doon démb du ko def fas yéene nag li des ci dundam du ko defati njëriñul tuub say blaat mooy boo ko defee yàlla da lay jégal bàkkaar bu lépp mhm. bu dee nag sàcc moom mhm. danga def yooyu ñu wax yëpp mhm. yokku ci nag ka nga sàccoon nga dellu delloo ko la ko sàcc waaw moom da nga bàyyi sàcc rëccu li nga jot a sàcc fas yéene dootoo sàcc ba noppi nag la nga sàccoon nga delloo waaw bu yàggee sàcc ba nga xam ne moom li mu sàccoon lépp mënu koo delloo moom ah, mënu ko nag fay fay xanaa mu dem ci ñoom sàccoon ñu jégul leen ah. bu leen baaloo bañ baal ko ba tey mu wàcc ko leen leeral ne daa leen sàcc amul leen faye day ñaan ko yàlla ndax tuub subaa mm-hmm. it mën nañoo baax jégal ko mm-hmm. ñii ñu baax lañ ñu ko jégal waaye daal yóbbaale ak dee yóbbaale àq yooyu wóorul ndax dana jural nit dañuy tuddee fayit yonent bi alayhi laajoon na euh, kan mooy muflis mm-hmm. saxaaba yi ne ko liñ ci xam mooy koo xam ne day jaay mu yàgg mu perte amatul xaalis amatul marchandise ñu dee iflaas dëgg yow man xam lay am li day ñëw indi tuyaaba ju bari aw yiw bari ndax dafa def waaye nag yàgg a tooñ nit ñi yàgg gàddu ay àq dëng gu mu yàgg ko def ci nit ñi mhm. su ëllëgee boobaa foofa baale amu fa dañuy jël ci lim lu baax lim amoon li ëndaale mhm. di fay nit ñi masalan daal ci misaal ñu ne indi na ab camion bu mag aku yiw waaye nag lépp ay tooñ ay tooñ toll am na lu tolloon ci ay tooñ mhm. yooyu yëpp la ñuy jël di ko delloo seen ñooñu bu nee ba yoroon ci lu baax jeex te tooñ yi des tooñ bàyyi ko ñu ne yéen ñi mu tooñoon ana seen lu bon ñu ne mi ngi ni ñu ne nañ leen ko wàññi da ko fa yóbbu yóbbu bari waaye mujj ay ay musiba ndax ay tooñ hmm. ndax tooñ yàlla màgg na rëy na lool waaye dañuy wax ne ab jaam yàlla buur bu baax la ba mu yërmaane sa moroom mën na laa baal bu yomal xayma ci lu dara sa moroom jaam nag boo ko baalul ba mu baal la bu yomal xayma moom fay rek hmm. moo tax sëñ bi jàngale ci joxur na fi si ne saa bu nit ameele àq ak yoo xam ne der la ay yàq ab deram hmm. bu dee alal moom da nga koy dem fay boo fa nekkul nga jox ko ay ndonoom buñ fa nekkul nga saraxel leen ko hmm. bu dee nag aqi der la moom boo fa fekkee waa ji ne ko maa yàq sa der jégal ma bu fa faatoo dem na yóbbaale sa àq fas yéene fasal yéene lu ci lu baax ndax nga am yu bari woo man a faye ba desal lu mu sël te foofu moom kenn du fa jégal kenn jégal bale moom foofu ndax yu mel nii mat a moytu hmm, hmm. yu mel noonu koy tuub faaw da ngay delloo ak soo amul loo delloo te nga dem ñu jéggal bañ jéggal la buñ la ko jéggalee mu wàcc la hmm. jërëjëf sëriñ bi ki euh, mbokk mi mu ne daal euh, kii dafa dafa doon waajoo xam ne euh, dafay liggéey ci benn entreprise boo xam ne nijaayam moo ko moom waaye nijaayam wutalu ko salaire bu ko limal bu ko bu ko bu ko warlul di ko fay mu ne ndax dana daggan ci moom muy jël ca liggéey ba di ca faj ay aajoom wala déet sëñ Abdou Lahad loolu moo leeru ay nit bu ñuy liggéey dañuy liggéey ci lu leer hmm. moom benn muy gone guy jàng liggéey nongu ne dañ koy jàngal liggéey di ko dundal di ko yor loolu mooy taxaw taxaw fayam hmm. bu ma léegi dem liggéey wala ñu jubóo ci ñu di ko fay hmm. waaye amaa nijaay fayuma kon naa naa naay fekk sama ci lu mu yëgut loolu sàcc la ci magasin bi daal moom moom ah, du du loolu moom fekkee dem na ba yëg ne am na aajo na wax moom ne ko man kat nijaay bëgg naa di faj samay aajo mhm. dee ma jox nangam mu ko demal ci faj sama aajo bu ñu ci juboo mu di ko jox loolu muy liggéey mhm. te loolu jàpp naa ne bu fekkee mën naa mën na liggéey bi te ni jaay ji aajo du ko bañ te moo gën a wóor loolu mu bëgg def liggéey daal moom kon amul baay amul nijaay amul kii su fekkee ne sartut ci ne day jàng liggéey moom dañ ko war a yoonal luñ koy jox daa war yoon ndax liggéey moom fekkee da ko jàpp ab liggéeykat moom dañ ko war a daa war a xam sax ñaata koy fay mhm. daa bokk ci sart yi bu ñuy signé liggéey waa ji na xam ujuraam ñaata la ajir daa war a xam ñaata lañ koy fay saa bu ñu waxee ne kaay ñu liggéey su amee bénéfice ma jox la nangam loolu ci anam ñu dagan bokk liggéey lay waaye bu dee koo jël ko liggéey loo moom daa war a xam ñaata lay am ak waxtu woon la koy jot jërëjëf euh, sëriñ mbokk moom yaakaar naa laaj bi leer na mu ne kii dafay dafay laaj mu ne lan mooy atteb ki nga xam ne dafa faat ay julli yu bare bëree bëree bëree bëri moom daal ndax euh, euh, euh, julli yooyu mu faat jégglu bu ko defee dana tax ñu jéggal ko loolu wala dafa war a fay julli yëpp ah, ndax xamut lim bi mu faat moom waaw li ñuy wax de mooy nit ki bu amee bori julli hmm. lu mu bari bari da ko war a fay hmm. bu xamul nu mu toll na fay ba xelam dal moom leer ko ne ëpp na waa yeesu hmm. ndax mën naa xam at moom bàyyee julli bu ko leeroon na fukki at la na xam ne am na bor fukki atu julli sëriñ bi nee na kuy def saa boo jullee gën a julli fay ju fay bis bu ne nga fay ci juróomi fan mhm. bis bu nga fay juróomi fan mooy bis bu ne boo jullee tisbaar tey mhm. julli yeneen juróomi tisbaar boo ko defee ci bis julli nga fay nga juróomi fan fay nga boo ko defee at fay nga juróomi at kooku bu dee bu dee fan bu yàlla dogalee mu faatu ci diggante bi amoon na yéene yàlla mën na ko jéggal mhm. waaye baru julli moom fal fay da ngay tuub la la weesu waaye fas ne fay ndax hmm. mën a dabaatal dañ ko war dabaatal hmm. luñ mën a dabaatal dañ ko war dabaatal hmm. jërëjëf sëriñ bi euh, kii dafay laaj mu ne euh, bëgg na daal nga leeral ko ci ku góor ki nga xam ne maanaa dafa namp weenu soxnaam am lu ca génn mu muuc ko mu ne ndax euh, moom mu def loolu bëgg li mu bëgg a wax dëgg-dëgg daal mooy ndax araam gi ñuy wax ci nàmpalante dana dagan ci ci ci ci ay mag wala déet nàmp gi araamal mhm. mooy ab liir buñ nàmpal ci biir ñaari at yi muy nàmp mhm. ñaari at yi mu toll ci du nàmp soow soowum jigéen jum ca nàmp jigéen jooju yaayam mhm. ci misaal naar yi da téer yi dañ koy misaal di misaal lu mel noonu masalan tey kuñ mayoon ab liir ab liir dañ koy wax ni rek ngir joxe misaal. Mhm. soxnaam dem nàmpal ko. Mhm. sëy ba tas na. Mhm. waaw ndax léegi doomam soxnaam so yor soo mu borom këram su ci nàmpalee xale bi xale na soo mu soo mu bàyyam. borom këram kon léegi borom këram bàyyam te nit du yor doomam waaye ay mag moom bu xasee mag ba soxlaatut am am soow ngir dund maanaam yow soow yoratu ko. kooku mooy lu weesu ñaari at yi nàmpale amatul jeexit waaw leer daal mooy li ñuy wax li araam ci ak nàmpalante mooy koo xam ne soo mi dana ko jariñ waaw xale ko jariñ dara feragub xale bu même fer ba teeloon a fer sax fer na ba soxlaa tut nga xam ne soo mi amatul ko benn njëriñ mm-hmm. su boobaa sax loolu amatul njëriñ dootu jeex dootu jeexital jërëjëf kii mu ne ndax dana dagan euh, ci ku góor ki mu mu fanaan ci ak soxna soxna si nga xam ne da koo fase mu fanaan ak moom ci benn néeg loolu dëgganut te wóorut nag mm, mm. nit ki boo ko xasee fase moom ab jàmbur la ci yow mm. bu dee soxna suñu fase fasem payli nag ba tey soxna la de ci dëgg-dëgg waaye nag suñu jaxasoo moom li tey nga mën a jaxasoo moom it yaa ko def ndax yaa ko fase bu la neexee nga ne ko maa la fase woon génn naa ci muy fayle bu dee fasem ba in wala rajax yi wala batta moom mënutu ko fayle bu dee bàyyin moom man nga ko takkaat hmm. donte ida ji yaxut waaye façon bàyyin la mën nga koo takkaat joxewaat teen ñu fasaat la ko kooku ab jàmbur takkaat ko la ñuy bañ hmm. te idam jeexul bu dee fase mbatt nag ban de zawj mooy fase nga ko ñetti yoon moo xam ci benn baat la moo xam da nga ko fase takkaat ko fasewaat ko takkaat ko fasewaat ci mën a doon faw mu sëyi fi ne ba tasaat fa idda wal ba idda ji jeex nga doon ko sañata waaye bu dee fasem pay lañ nga xam ne bii yoon benn benn yoon nga commencé fase yéene ci benn fase hmm. sëy bi tas na waaye tasut tas ku mat sëkk waaye da tax mu dagan ngeen fanaan benn néeg ma fanaan benn néeg hmm. kon biñ naan biñ naan day toog ci kër gi rek tamit day toog beru ci néegam waaye borom kër gi moom du du bokk moom néegati hmm. xanaa mu bëgg ko fay li kii da xam naa laaj bi mu laaj moom daanaka ab waxtaan la mu ne lan mooy cosaanu tasawuf ak nan la sosoo ci lislaam loolu ci tënk li ma ci a wax rek mooy tasawuf susuwu ci islam tasawuf ci islam la bokk. da cee bokk. da bokk. tur wi nag mën naa doon lu yees. waaye nañ xool li biir tasawuf la la dëddu la ragal yàlla la. lu ci moom la yooyu la. amoon na kilifa bu baax ku naa wax Abul Hasan an-Nadawi rahimahullah dëkkoon fële ci Inde. daf téere bu ñuy wax rabbaniyatun la rahbaniya. wax wax yu solo nee na da wax ak nit ne ko zuhdu li atam ci islam mooy la mënta ñàkk. mu mm. ne ko mu mun la loolu moom lislaam mun tam te muñ amut mm. yu baax yi boo ko tudd rek mu ne macha allah nga ne ko buñ ko boolee mooy tasawuf mu ne baaxut nee na mooy koo xam ne eh, day bëgg na carotte xam na musabe la di lekk nawe di lekk ñambi bu ci nekk loo ko beree jox ko mu ne baax na boo ne carotte mu ne daa baax ci bët <laughs> boo ne nawe mu ne la day day seeyal ay ay xeer yoo ko wax rek mu ne baax na ñu defar benn palaa yooyu yëpp boole ko ci mu ne li baaxul. Hmm, leer la wax moo ne tasawuf yi ko yi ko boole amul kenn ci ñu lislaam ku naan ñu hmm, hmm. amul yi ñu dajalee yooyu la war a mel kon ci lislaam la bokk. waaye wax ne kañ la ci sos wala kañ la ci dugg. léegi nag tur wi nag aw tur lay dox. ñu demee ba faqih euh, ñëw euh, ñu ber yeneen tur yi am ni yëpp. amuloon ci lislaam ay muslimoon rek ñoo fi nekkoon waaye dem bu am ay ngër. Euh, te séddale ko ci ay ay kuréel lépp loolu lu dabe la. Hmm. waaye nag li tudd tasawuf dëgg-dëgg moom ci xolum lislaam la bokk. boo hmm. xam ne ci yéen islam bi indi mi lislaam jaare ci moom ñëw moo ko njëkk a dund. saxaba yi dund ko muy rogalaat am bi ay jëmi jamono nag ay am ñu ci gën a ràññiku te booba jamono yàqu ba nit ñi dëgmal adduna dëgmal ko am ñu beroon nag féete seen borom. Hmm. ci lislaam la bokk. jërëjëf laaj boobu leer na euh, kii moom moo ne dafay laaj lan mooy atteb jàng alquran ak lan mooy daal ci ki nga xam ne euh, moom du jàng alquran. ah alquran de moom xam nga sunu borom moo ko jox ne ko muy jaamu yàlla gu rëy. Mhm. war di ko jàng saa su ne. Mhm. bu dee taale moom sëñ bi daa wax ne donte ñetti isib la da koy jàng bis. Mhm. Euh, ki nga xam ne jàngu ko ci bis bi ndax dana am bàkkaar wala déet. xëy na bàkkaar moom bàyyi farata mooy tax am ndax ab jullit mënut a ñàkk a jàngal xaan ci bis saa dana julli te bu jullee dana jàngal xaan xëy na waqaf la jublu wax waqaf moom bu fekkee ne nit ki da ko Niger moom farat lay doon léegi waaw Niger ne fas naa yéene bu set danaa jàng nangam farat lay doon saa yoo ko bàyyi tey moom ngànt da ngay bàkkaar bu fekkee ne daa baaxoo di jàng su ma nee jàng su amee ngànt xam te daa am ngànt wala nag gënul nag gënul waaye nag ñu wax ne day waral bàkkaar mm-hmm. lu ma ne ab daa war naa fexe ba moom bis bu set moo am wérdu alxuraan bis bu yàlla sàkk wutul ko waxtu di ko jàng njàng mu tey di ko setantal mhm. jërëjëf sëriñ bi dafa mel ne laaj bii ñuy laaj mooy suñu laaj bu mujj ndax euh, waxtu wi jot na kii mu ne lan mooy atteb ngénte doom ji nga xam ne doomi njaalo la mu ne ndax dana dagan tamit maanaam ki nga xam ne daal leer na ne doomi njaalo loolu nan lañ koy ngéntee ak ndax dana dagan lekk ci ñam yi nga xam ne euh, dañ koy togg ci xew euh, xew boo xam ne xew-xewu ngénteel doomi njaalo la mu ne ndax tamit ndax tamit imaam tamit dana teew ci ngénteel doomi njaalo ngir jox ko aw tur wala det waaw xam nga doomi njaalo moom moom moom deful dara de mm-hmm. indi fi boppam ak ñëwum doon ci dara dañ koo tooñ ñaari nit ñu jubadi ñoo doon mooy yàlla ba mu feeñ mm-hmm. la cay xew lépp seen mbir moom yoonam nekku ci xëy na nag tooñ nañ ko ci xañ ko askan bu baax xañ ko askan ci boppam sax ndax doomu njaalo wut askan mm-hmm. ñaareel ba it baax dina ko xaw a jafe léeg-léeg hmm. ndax bi a daa baax ci nit te ñaare ku mel noonu léeg-léeg bi a jafe ko hmm. jafe hmm. ñuy wax naan ci àjjana dana ci dugg ak yëpp loolu tax ñuy wax waaye bu jaamoo yàlla tegu ci yoon ku baax baax la kon ameel nañ ko àq wutul ko ak tudd loolu nag par jafe am moom mooy yaay la am amul leneen yaayam lañ sant loolu bu ko mënee moo ko war a wutul tur moo ko war a wutul am xar amma ñam yooyu nag. ñu hmm. bàyyi xel ne ñun li ñuy def nii de siiw ñu di ko def rek waaye du lu gën de. Hmm. mooy am ngénte dajale nit ñi def aw xew. Hmm. rey xarum tudd mi togg ko nit ñi di ko lekk du sunna de sunna moom am xarum tudd des ci wow mbooloo. ceet ceet mooy ceetal mooy sunna togg aw ñam woo nit ñëw lekk ñaanal leen waaye bu dem tudd moom dañuy bëgg nga rey xar mi lekk ci sa njaboot lekk ci nga saraxe ci maye ci waaye nag mu fekk leen seeni kër. dañoo xam ne ku bëgg a woote bis bu mel noonu nga sant yàlla sañ ko waaye da ngay wut benn gàtt wala nga wut ndawal feneen lu bokkut ak tudd bi bu mm. dee mën nga ko defar nag togg ay ñam woo say xarit ak say wala de wala yu mel noonu waaye jëmmi xarum tudd bi moom euh, bu dee ku mel noonu la ci gën a jaadu sax kon moo ñu saraxe ko kon mm. dajale fa nit ñi moom mu mel new xew di ko bëggee loolu dëgg la doomu aadama su juddoo ñëw àddina loolu sant yàlla war na ci mm. waaye nag aw juddo win dana taxit cant nga ñu am nañ ko demale moo tax ñu mel noonu it duñ bëgg ilimaan ji fës ci dëkk bi mm-hmm. ñëw di ko tudd ni muy tuddee ku judd normalement mm-hmm. ndax loolu day encouragé ñu bon ñi yu mel noonu dañu bëgg am mu nekk ak jàjji mu nekk ak jàjji ci ki ko def xam ne ah, kii kat bi doom ji juddoo anam gi tax na benn waaye la ñu ba rek mu tudd ko mm-hmm. waaw ndax kooku mu genn kilifa la am mu yaayam amul leneen ci àdduna sant sant ñu koy sant yaayam lañ koy jox waaw ndax sanu mbokk ko daal teew ca moom gënul teew ci teewuk teewu xam day day nuru ne da ngay da ngay wan ne li nga def dara waaw loolu mu baaxul waaye fekk fekkee ni ko wax day ñëw ji leen xupp leen dellu leen ci yàlla wax leen lu ñu war def ak doom ji atte yi ci aju yëpp mu leeral leen ko suba loolu lu baax lay doon baax baax lu war sax lay doon léeg-léeg hmm. su ko defee ñam yooyu it nag saraxe ko tuubal yàlla jéggul yàlla buñ ko defoon kuñ jox ñam yi sañ ko lekk moom ndax ñam yi dara nekku ci xam hmm. maa nag daf ko noos koo xam ne moom nit ñi dañ koy bëggee loolu moom moo moo mu jàddu jërëjëf sëriñ bi kon xam naa ñu bàyyi la nga tàggoo ndax waxtu wi dab nañu ah, ok jërëjëf dellu di santa rek mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp ëtt bi di sant sëriñ bi la di ñaan yàlla defal ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp ñu ngi jégglu ñëpp di leen baal xam di sàkk ñu jéggal ñëw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Mbàkke Abdourahmane yow ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal su borom gën la kattanal gën la fee yàggal wéral la gën a yaatal xam ñi ngi sant it mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci eh, MKTV ak eh, CMT TV ci seen émission bii di gàggantiku di leen gërëm bu baax di gërëm tamit eh, sëñ Abdou Khadir muy réaliser émission bi ak sëriñ Mouhamed Ngom sëñ Cheikh Diop ak sëñ Ablaye Lo mi nga xam ne mooy dajale question yi nga xam ne bokki jullit yi ñu ngi koy laaj kon mbokk yi ñu ngi leen di jox dig daje wala ñu ngi leen di dig ab daje ci seen émission gàggantiku ci seen beneen numéro di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam